والملكوت خالق العوالم يا الله يا ريم بالستار سل وسلم على المختار رسولك اللهم بالأعمال بارك وبالعلين والأموال الناظر الحق بالأقواض القاسم الهادي إلى المصالي لا إله إلا لا
ذي الملك عظيم دائمي والملكوت خالق العوالم يا الله يا ريم بالستار سل وسلم على المختار
mbokk yi loolu kon mu ngi bokkoon ci li nga xam ni alxaaji ibrahima saxu wax na ko ca place ba lépp aju ci li nga xam ni moo di fàttaliku ganeeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak feeñam ci àdduna kon bi ñu daataan jóge ca place ba ba tey ki nga xam ni moo di alxaaji Mouhamed Habib si di doomu Cheikh alxaaji Malik radiallahu anhu moom itam ñëw na ca place ba nuyoog mbooloo ma jokkanteeg ñoom ziyaara am kàddu yoo xam ni wax na ko fa ci wàllu dénkaane ak sant ko léegi ñu déglu alxaaji Mouhamed Habib si
mu ngi leen di ziyaara bu baax bu dugg tedd gi li mu ngi leen di ndokkeel bu baax
ñun war nañu sant yàlla bu baax
mu ne ñu waroon sant yàlla bu baax ne bu wàllee lam nga xam ni nit bu wàllee lam
féete mbër may yàlla ba ko war ba ko yéene déedéet déedéet déedéet mu ngi.
war naa sant yàlla war naa sant yàlla déedéet.
te mbër moomu te mbër moomu.
moo di kan moo di kan. mooy si dégg naa ne dafa
nañ sant yàlla nañ sant yàlla.
bi ñu yàlla xamalee kuy alaaji may bi nu yàlla xamalee kuy alaaji may.
ne koy xam moom alaaji may yaatu na lool alaaji may kay moom yaatu na lool.
boo seetee adduna boo seetee adduna.
café yaa ngi ci café yaa ngi ci.
bistro yaa ngi ci bistro yaa ngi ci.
bu ci nekk dañ fay naan bu ci ne dañ koy naan.
waaye am na xeeti naan la waaye am na xeeti naan nag.
bu fudante doole yoo xam dañu ëppante doole. ëppaloo.
ma bëgg nag ma bëgg nag.
waxtaan ak yéen waxtaan ak yéen.
ci wan leen li alaaji ahmed siise suñu mag ji wax ci woon leen li alaaji ahmed siise sunu mag ju baax di wax ci affaire loolu bëgg a am ci affaire loolu bëgg am
wax yi bari na lool wax yi bari na lool
waaye waaye
damay wax toujours ne damay wax toujours ne
ab rëbb daal ab rëbb daal
boo xamee ni dafa bëgg rab boo xamee ne dafa bëgg rab jëm ci àll fa petalam jëm ci àll am bal am mbal te mën a jam te mën a jam yàlla dimbali ko ci mbaaxam yàlla dimbale ko ci baaxam mu am rab mu am rab séen ko séen ko ba jël position ba jël position dara desewu ko lu dul fetal ba ko dara defewul lu ñu séqee rek fetal muy déglu bu koy woo muy déglu keneen ku ko ne hey waay amul fulla kooku amul suñu rabam day raw
te ñun suñu rab te ñun suñu rab mooy Sidi Hadj May mi ñu gis mooy si daay daal ñu ngi gis ñu war a góorgóorlu ba ànd ak moom ñu war a góorgóorlu ba ànd ak moom ci li nga xam ne moom la bëgg ci li nga xam ne moom la bëgg te mooy yàlla te mooy yàlla ak yonent bi ak yonent bi ak Cheikh Sidi Ahmed Tidiane ak Cheikh Cheikh Ahmad Tidiane
léegi léegi
ñi ngi wax ne ñu ngi wax ne am na ñuy wax ne jumaa ji du taxaw am na ñuy wax naan jumaa ji du taxaw ñi ñu koo askanale ñi ñu ko askanale waxuñu ko de ñoom day waxuñu ko
ndax ku am sa cër doo ko yàq ndax kenn du yàq sa yëf sëñ Abdou bii ñu àndal suñu Abdu mii ñu ànd xam na fi mu jëm mi ngi fi jëm moom xam na fi mu jëm mu ngi fa jëm ñun ñi àndal moom nag jëmuñu fenn ñun ñi ànd ak moom nag jëmuñu fenn see ñoo wàññi suñuy laab lu tere waaye ñu téye suñuy sarko wal ñu suñuy laab ànd ak moom fi mu jëm jéem a ànd ak moom moom mi xam fi mu jëm ndax ñu jëm fi mu jëm loolu laa gis muy muy muy avantage ci ñun loolu kat na wóor ne moom laa gis muy bénéfice tey ci ñun ak ëllëg waaye di wax naan jumaa ji kenn du ko commencé waaye di wax daan jumaa ji kenn du ko commencé jumaa ji néegub yàlla jumaa ji nii bu yàlla wa anna almasajida wa lillahi anna almasajida lillahi fala tad'u maa allahi ahada fad'u ma allahi ahada
Eh, xaj na danañ ci jëm si te xëy na dinañ ci jëm si
ci lu yàggul ci lu yàggul sëtu alaaji Malick surtout alaaji Malick ak doomu alaaji Malick doomi alaaji Malick ku ormal alaaji Malick ormal alaaji Malick da nga wattu ñooña di war nga leen a moytu ormal teral leen bu baax teral leen itam bu baax jëf wax yi bari na ji lool bari na lool waaye nag waaye
wut leen nit fas wu yaa biir wut leen nit fas wu yaa biir te loo ko ko guble ba mu jënd ko yeew ko te nga di ko seetaan muy guddi rek ah bii fi gor de loolu de góor waru koo def koo gis mu ngi naan jumaa ji koo gis mu ngi naan jumaa ji bu ñu ko commencé gas buñ ko commencé gas ñëpp daw ñëpp daw ñu def ci suñuy loxo ñu def teg suñu loxo
ñun wolof noonu la ñuy def noonu la olof di def nañu fexe nag nanu fexe ba lii alaaji bu saaxo ba wax lii alaaji bu saako wax
bu fekkee ne bu fekkee ne yàlla miy dogal yàlla muy dogal dogal na dogalam dogal na dogalam
mbir mi war a am mbir mi war a am
lu waaye am na ko andi lu waaye am na ko bu indi dee peel la bu dee peel bu dee pikk bu dee picc bu dee weñ la bu dee weñ bu dee doj bu dee doj baax na lu mu doon rek lu mën a dem ci tàq rek na nga fexe rek pour yàlla gis la noo nga fexe rek yàlla gis la. te waaye yoon buñ ci fexe it Abdou- sëñ Abdou gis la.
yoon ci Abdoul Aziz, te yoon ci Abdoul Aziz te yoon ci Abdou gis nga sunu baay yi baal ma ñoo daan béy jaksaaw daan di gis jaksaaw ñu di ko béy juróom benn mu xaddam nekk ci ñaari weer kenn du gis sa morom ci day dal fële ak Italie ne fekk ko Eh, ñu jëkku du ma ñibbi fii gan- noonu fii noonu gannaaw loolu nag ginnaaw loolu
ñàkk wax bi fii ñàkk wax bi fii
du dara du dara
xëy na ñàkkul ma xam ci lëf de ñàkkul ma xam ci slëf ci mimie bi ci mii mi yëpp yi waaye nag waaye ku am ku dudd lakk borom kuddu du lakk te itam te itam dama def faalul xasan dama def faalu xasan maanaam gaat nga gu rafet suñ abdu du dund sëñ abdu du dund yàlla jëlewu ko fi yàlla jëlewu ko fi ñu ne feebar na ñu ne feebar na wala ñu ne alaaji ay bi ba def fii ca jumaa ja wala ñu ne laaja bi ne tey ci jumaa ja ah mooy firi mooy firi gàmm ga mooy firi gàmm ko ñu ne ana sëriñ ba ñu ne ana sëriñ bi ñu ne dafa feebar ñu ne dafa feebar ba mënut a jóg ba mën ko la jóg loolu rek a tax wax loolu wax na bu ma wax jëf bëgg nag yàlla bëgg yàlla faalu boobu faalu boobu ma faalu defal ma ko mu defal ma ko ci rafetal ci rafetal mu yàgg fi mu yàgg fi di ko fi yàgg def ko fi yàgg a def moo tax moo tax du ma jiite ca saw yëpp du ma jiite ci sa wiye ba du ma jiite ci moo jumaa ji jiitu ci jumaa ji mën naa ko remplacer ci ngénte mën naa ko remplacer ci ngénte mën naa ko remplacer ci néew mën naa ko remplacer ci néew waaye yii nga xam ne waaye yii nga xam ne doone yàlla la doonay yàlla la muy xalifa yàlla muy xalifa yàlla muy dénk ko ko du ma muy dénk ko ko ko ci jiitu du ma ko ci jiitu mukk
looloo tax looloo tax def looloo tax looloo tax
xam naa gaañ ne sax dafa mënul mimi ya moo kon tax nag kenn ko
waaye nag waaw loolu rek la loolu rek la leer na nañ moom mënul woon sax ñëw mënu woo sax ñëw kaa maa ko forcé moo ko forcé dëgg la ak waxtaan yi loolu laa doon bëgg a waxtaanee fii Yàlla jërëjëf yàggal sutura.
yàlla yàlla sutura tey Eh, ñu ngi gërëm it borom rajo bi ñu ngi gërëm borom rajo bi di ko sëñ bi waxe woon ci coono bi mu ci def coono bi mu def xale yi ko indi xale bi ko indi seen kilifa seen kilifa ba joxe ndigal di joxe ndigal kilifa ga mu ilif kilifa ga mu ilif kilifa googee kookee yebal ñii yebal ñi ñu ngi leen di gërëm ñu ngi ñoom leen di gërëm ñoom ñëpp jërëjëf yéen itam yéen itam ñu ngi leen di ndokkeel ñu ngi leen di ndokkeel di leen gërëm di leen gërëm seen i ci coono seen coono ndax ñëw ngeen ndax ñëw ngeen ngir màggal Sidi Hadj ngir Malick màggal fii di Haaj Maalik màggal guddi yonent sallallahu alayhi wa màggal sallam guddi gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye aw ma sikk ci waaye awma sikk ci ne képp koo xam ne képp koo xam ne féete nga ak alaaji Malick féete nga ak alaaji Maalik te xeebu loo ko te xeebu la ko sofantaloo ko te xëppantaloo ko te dara du sofan daanaka du soxla. kay xam naa loolu man maanaam mën a waat loolu de.
nañu góorgóorlu nag bu nan baax góorgóorlu bu baax.
tey déglu tey déglu.
di ko jëri jëriñoo di jëriñoo la nuy dégg.
ñu bañ koo sarale bañ koo sarale.
nañu góorgóorlu bu baax nañ góorgóorlu bu baax.
te itam tey
bu ñu jéem a bu ñu jéem a
woo ñaawteef woo ñaawteef.
ndax alxaaji Maalik dafa wax ne alxaaj Maalik dafa wax ni.
ci benn xas wayam ci benn wayam.
daaliya daal ya.
ya rabbi hab liya sabran astainu bihi ala ihtimali al ada axlaqi ya samadu والعفو عنهم إلهي مع مصابرة بكظم غير كما أحببت يا فرد وقل منهم وفلح بمحسن ولاة عواقبه صبر دونه شهد حمل الأذى سنة للأنبياء معا Okay.
كن حاملا كل ضير Okay.
صاحب التجد مم العباس بيده لا تفتهل عينا للأسواء حيث أتت والعين تدريبها في ذاك قد يريد dëgg la bët dafay sàkku ñaawteef dëgg la
bu gisee ñaawteef daf koy xëcc kon nag bu leen ñu xoolal ñaawteef ci fenn bu ngeen ñu nettali dañuy bëgg ngeen dimbali ñu ci nettali ñu lu baax rek est-ce que ñu mën a ànd ak yéen pour dem loolu kon mbokk yi moo di kàddu yi nga xam ni alxaaji Mouhamed Habib si di doomu Cheikh alxaaji Malick si radiallahu anhu wax na ko ca place ba aw ba nag ki nga xam ni moo di suñu bàyyi alxaaji Ahmed Cissé bu Pire comme ni ñu ko miine ci moom am na ñaan gu mag koo xam ni def na ko pour ñaanal ko mbooloo mi ñaanal ko réew mi yépp ñaanal ko mboolem mbokk yi nga xam ni ñoo nekk ci àdduna bi ak mbokki jullit yépp mu di ñaan gu am solo ñu faral ko ñu di ko faral di dégg ci moom kon léegi nu mottalee waxtaan wi ci ñaanu Baye Alxaaji Ahmed Cissé
من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الآباد والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بعندك أعلى درجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الآيات وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرداء والتيسير وتغلق بها لنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصير أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياخ الأغيار ومفتاح باب الأسرار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على نور الانوار وسر الاسرار وترياق الاغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت يدتي ادركنا يا رسول الله ادركنا يا حبيب الله ادركنا يا اكرم الخلق على الاطلاق وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أسيرا دائما أبدا إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم يا ناصر كل منصور يا ساتر كل مستور سبحانك لا إله إلا أنت خلصنا من النار خلصنا من النار خلصنا من النار يا ذا الجلال والإكرام يا مجير يا مجير يا مجير أجرنا من النار يا ذا الجلال والإكرام يا مجير يا مجير أجرنا من النار يا ذا الجلال والإكرام يا قاضي الآجات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا صلاة المجيد لطفك قريب وراجك لا يخيب فقد حاجتنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة فاتحة
يا كثير الخير يا دائم المعروف
شايفك لوني